avons besoin de nos cartes d'identité. Nous avons besoin de nos cartes d'identité. Suñu quarante lañu soxla. Suñu carte lañu soxla. Suñu quarante lañu soxla. lañu soxla. Léegi booloo fii en tant que citoyen sénégalais di naqarlu ñu dégg ci carte d'identité boobu ba tey chaque jour ñu naan ñu tey suba dañu woon deux mois la ñu waxoon carte xam def ci cinquante deux milliards chaque jour ñu naan ñu tey suba barki démb ñu dégg ñu ne ab loo moo jugee moo ñëw Brésil te lool tey suñu xel lool léegi nag ñu ne nan dajaloo ñun en tant que sénégalais kaas suñuy droit loolu rek la suñuy droit lan soxla suñu carte d'identité lan soxla dana am nañ droit voter loolu daal moo tax ñu booloo fii di naqar la loolu di wax ne ñëpp jàppalañ ci ku nekk di diaspora beeg ñëpp ñu xeex lii mu jóge fi Sénégal dafa war am démocratie ku ne am sa droit am euh, carte d'identité votel ku la neex mais c' est trop c' est trop lii buñ ko bàyyee nii du dem réew mi réew lii du ko doxal lu ko réew lu ko doxal mooy démocratie waaw loolu lépp nañ ci ndax parrainage bi nee na le 10 décembre lay jeex boobu ba mu jël suñu carte d'identité ñu ne boobu léegi ñu ngi war a parrainer muy muy opposition muy état mais ñun dañoo bëgg jot suñu carte d'identité le moins de 16 mooy suñu carte d'identité ba pare lii dafa ñaaw ci réew Sénégal carte d'identité da ngay xool Argentine gii boo amee bëggee carte d'identité un jour sa carte d'identité deux jours fii da toog ay mois ñaar la tey suba ngoon tey suba ngoon trop c'est trop loolu nag lañ bëgg mu jeex Sénégal dëgg yàlla. ñun ay doomi sénégalais lañ nekk fii ci Argentine ñu am droit am suñuy carte d'identité mooy suñu identification nationale sénégalais et mu amoon benn mission bu fi ñëwoon y a de cela six mois pour def. Euh, Euh, inscrire ni ñi ci ci ci carte yi bon ñu ñëpp inscrire nañu en masse pas ñëpp mais en grand nombre et ñu waxoon ñu nag juillet dinañ indi carte d'identité fii ci Argentine mais depuis lors jotaguñu carte jotaguñu suñuy carte d'identité nous avons usé de tous les moyens pour xam fan lañ toll ci loolu mais boobaak léegi amaguñ ci benn satisfaction à la dernière minute liñ ci mujjee am mooy te ambassadeur bi joxe woon ko note à travers ki mu yabaloon pour mu benn mu joxe nu benn not mooy que ni carte dante yi ñëw na mais lépp ñëwul benn loo moo ñëw te loo bi ñëw mi ngi Brésil mais loo bi ñëw mënaguñ ko jox seeni borom ndax amuñu ay moyens yoo xamante ni mën nañ koo dugal biir Brésil pour ñu citoyens yi jot ko wala ñu indi leneen li nga xamante ni Argentine la bokk ñu jot ci te loolu nag moo tax ñu dajaloo nii laaj ndax loo xamante ni génn nañ ci cinquante deux milliards pour ñu defar ko nan la mën a def ba nga xamante ni benn parti mooy ñëw Brésil te lépp ñu defalandoo ko benn yoon mais ci benn parti boobu ñëw Brésil sax amul état euh, ambassadeur bi amul financement yoo xamante wala amul moyen yoo xamante ni si mën na koo dugal biir ar biir Brésil wala biir Argentine ci kaw njàqare googu ak tiitaange googu moo tax ñun ñu dajalewoo ñun en tant que citoyen sénégalais pour ñun ñu jox nu suñuy carte d'identité ndax ñun ay citoyen sénégalais rek lañ te dañu am droit vote d'ici trois mois mais au delà avant ñuy voté sax war nañu droit parrainer te déjà parrainage pratiquement ñu ngi koy boucler mënaguñ koo jot loolu donc la mais defuñu ko pour en tant que politique mais en tant que citoyen sénégalais ñuy réclamer nos cartes d'identité nationale. man damay wax en tant que sénégalais bu nga xamante ne dafa nekk fii am droit ci am carte d'identité sénégalais man li ma mënoon concevoir mooy ñu jël cinquante deux millions francs CFA. ci xaalis contribuable sénégalais yi def ci ay carte idante yu nga xamante ne pour sénégalais sénégalais yi la mais am benn partie ci sénégalais yi ñu nga xamante ne dañuy jot seen ay carte d'identité am beneen partie ci sénégalais yi ñu nga xamante ne jotuñu seen ay carte am réew boo koy jiitee da ngay sérieux ci li ngay def pas mel na ku jiit ab mbootaay wala ku mel na ku jiit ab quartier wala ab daayra li ñuy wax mooy li ñuy wax mooy suñu ay carte d'identité nañ ñu ko indil nit yi voté parce que bu fekkente ne dañu bëgg a fi fii benn parti indi benn parti li xew Sénégal doxew fii élection moo moo fi lu am parce que kenn du voté parce que nit yi tamit ñàkk ñu fayda bay bàyyi ñu am ñu ñu jox carte d'identité am ñu ñu ko jox ñii di voté ñii duñu voté carte d'identité su amul élection du am fii Argentine loolu dafa war a leer nañ ko xam wasalaam donc ñun li ñu tax a jóg mooy en tant que sénégalais dañoo soxla suñuy carte d'identité non madame Correa def na benn message boo xamante nii nee na ku soxla sa carte d'identité te ko mun nga ñëw Brésil jël si ko loolu c'est anormal ce qui est normal mooy ñoom dañu déplacé woon ñëw def suñuy inscription donc buñ ñu suñu carte d'identité nañ ñëwaat comme nañ fañ jaaroon jox ñu suñuy carte d'identité loolu rek lañu soxla en tant que citoyen sénégalais en tant que sénégalais bu nekk ci dëkk bii nii soxla carte d'identité war a def ay voyage am ak ay verser union am donc solo nañ suñuy karante waxuma sax cadre élection mais suñuy droit la ñun ñoo ko moom xaalis askan bi lañ ko defaree donc ñun suñ karante la ñu soxla autre chose mooy bi ñu wootee euh, au niveau ambassade li ñu xamal mooy amaguñu moyen yu ñu ko war a distribuer donc loolu dafa naqaree dégg en tant que état nga def financement bi nga xamante ni mooy xaalis bu dul jeex ci quarante instant bii nga ñëw ne amuñu mooy ñun ko distribuer donc loolu kenn mënu ko dégg li ñuy soxla mooy en tant que sénégalais mooy ñu ñu envoyé ñu suñu quarante ñu voté massivement ñun waa Argentine wasalaam. nous avons besoin de nos cartes d'identité. nous avons besoin de nos cartes d'identité. sunu carte d'identité lañ soxla ok sunu carte d'identité lañ soxla. sunu carte d'identité lañ soxla. ñun waa Argentine sunu carte d'identité lañ soxla.